abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ay xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew dikkati naa Benno Bokk Yaakaar te fi mu ne moo raw nag sabar gu tas tribune yéen kaay mel ni ku naan ma déet sabar gu tas goo xam ne nag chaise a ngay jóg kurpañe di dalante fu ne yéen kaay bi dee bi naan man allié yi sax ci biir xeex bi waa Macky 2012 nee ñu sëy ba doxoon seen diggante APR ci boppam mooy tas fa yàllaahu yéen kaay bi dee média bi naan man bu président Macky Sall def erreur de bés bu defee erreur ci kamu war a tabbu ku koy wuutu lambaay dana ñaaw ci biir Benno wala le peuple quotidien naan kon xeexoo bi biir Benno Bokk Yaakaar wala it xeexoo drapeau bi ci biir APR bu doonub drapeau la Abdoulaye Diouf Sarr ak Amadou Ba ñoo ko téye le témoin yéen nan kaay naan kon xeex bi yàgg na de xëccoo ndakaaru moo leen ci lii le peuple naan kon waaye nag ay règlement de compte la yoo xam ne na mu mujjee ma ngay tas biir parti bi ñu yekkante keteme ak ci defante yu ñaaw le président ki Sall woote woon muy bennoo di unité ñu daal di koy tàbbal géej ñuy xeexoo ma ni la ci biir permanence bu biir APR di teggi nag woor may président Macky Sall te xam nga ñaar ñii gannaaw local yi yi ñu rukk leen ba nu nooy ca lan ñàkkee bépp légitimité fii ci ndakaaru bu ndakaaru tàngee ma ni la kenn du leen dégg bu seddee nag ñu génn di raaya la ko nooyal yéen kaay bi naan man xam nga bu dee dañu ne ay wujj lañu nga la waaye dañ ko war a jëmale nag ci opposition bi seen wujj waaye nekk ci biir parti di xeexoo ci biir boobule parti du dëgg le mandat naan maan ñu bokkal parti sax ña ngi leen di yedd nag fa ndaw mouvement bu refondation bu valeur yi te Mamadou Gaye jiite leen day ma ngi leen di yedd naan leen yi bu ñu ko ñàkkee biir ndakaaru di xiiroo ak di ŋaayoo ñu ne déeta waaye nag ngeen dem ak seeni nit ba ci kanamay taskatu xibaar di fa xeexoo di wuññi sutura président Macky Sall di xal waa APR dem ba ci siège ba nag wane dëgg-dëgg yéen a bokk parti waaye mbëggeel daal doxul seen diggante di jëfe nag ni ki président Macky Sall moom nekkatul président joxatu leen ko benn cër joxatu leen ko benn worma Mamadou naan dëgg-dëgg lii lan la direct news naan mooy li ngeen gis rek te président Macky Sall neexut a wax waaye dafa mel ni gisagul dara direct naan man xam nga bu ñu demee ba président Macky Sall jël ab projet de loi teg ko ne nag mën na seen assemblée nationale bi saa bu ko soobee ay député yoo xam ne lu leen sàll def loo woon ñu def ko ne ñoom du ñu toog ci garab ba pare di ko gor maanaam daal di dëkk président Macky Sall daal di koy défier ñoom ñëpp nag député bu mouvance bi ànd ne projet de loi bii du ñu ko wote te du jàll yéene kaay bi naan maan li président Macky Sall bu ci jëlul njàngat xam ña koy wan moom président Macky Sall ne ko ci politique ku ne sa intérêt moo la tax a jóg ku ne nag sa bopp ci boppam ngay défendre Sall mi nga xam ne nag war naa tabb ki koy wuutu war naa xool bu baax baax ci la jëf réew mi quotidien naan man président Macky Sall day mi ngi ñam nguur nag buy jeex la muy saf ndax am na ñoo xam ne nag fi mu ne Sall bu tapee ba nuppi ñoom ñoo koy abal kay 24 heures yéen a kaay naan kon ndax ka muy tabb dana am doole Walf Quotidien naan kon ay wii jeex a metti nguur kuy jeex a metti ñamu àndaloon démb moom Sall ba muy neex tey ña ngi koy jori xeer gaa yaa ngay taw nag boto bu suux ba ñuy xeexoo seen biir ñoom responsable bennoo yi docteur Abdou Khadir Sanogo ci yéen kaay bi mel ni ku naan koon opposition bi gën a metti ci président Macky Sall daal ci moom lay jógee tribune yéen kaay naan kon juróom benn weer yi ko dese nar naa métti ci président Macky Sall ndax nag parti koy tuyi fële askan wi di ko defal bagage fële tribune yéen kaay naan man jiital ARD bu Fatick Djidiack Faye lay wuyoo soobu na ci élection présidentielle yi Djidiack ci boppam xamle na ni candidat la boobu la mandat xamal ma ne conco la mu tegoon ci Covid 19 day teggi na ko critique yéen kaay naan man scandale ba dem na ca procureur ba L'Obs naan man maa ci doomu aadama déglu nañ leen rapport ba moom ñeenti téeméer ci kilogramme la lépp ci bureau procureur ku ci nekk ñu tudd la ca xool nan sax am-am la nga am ca banque yaak ca notaire ya diggante étage yeeg fournisseur ya am na lu ca cay lëndëm yéene kaay bi naan maan am na ñoo xam ne sàcc nañu am na ñoo xam ne moom dañoo sàcc ba pare de faux et usage de faux léefo naan maan booba buumba ca Pastef fa ngay nooy Biram Souleye Diop bàyyi nañ ko El Malick tàbbiwul kaso libération naan maan kaso gi ndaw yi nekk moo raw yëpp l'évidence yéene kaay naan kon ñoo yey di suñu géej gi dañ koo jaay ba mu jeex xale yi amatuñu yaakaar amatuñu ci réew mi faatu libération naan maan ñi jóge Tunisie moom nee ñu la ñu fa dund daanaka jaxannama moo ko tane docteur Annette Seck ci 24 heures ne ñeenti téeméer ci doomu Sénégal ñu ngi ci centre yi ca Maroc ñaari téeméer ak fanweer ak benn ñibbisi nañ ci réew mi waaye seen yaram ñàkk na ndox ñàkk ndox goo xam ni maar day taali le point naan kon booba Aliou Sow dekkil na école normale William Ponty le témoin naan kon fii ci réew mi lu toll ci juróom ñaar fukki junni ci xale